كونان ماكي سال جينيس بي اندول اك موم داغي دا نيوول في وال ماكي سال جينيس بي اندول اك موم داغي واخ لو نيو في depuis une heure de temps ñu ngi daw ci tali bi yi bu gëmul lool bu la gëmul duñ ko def donc nous avons une jeunesse ici boo xam ne symbole jeunesse su Sénégal l'engagement de cette engagement maa ngi engagement maa ngi leen te man su ma leen dara ci war ngeen ko gëm 40 ans ngi di ko def naa ku dëggu xam naa kuy tricher vous ne